Mame Mactar Guèye ñu ngi lay nuyu. waaw kay ñu ngi fay nuyoo di seeral ci nuyoo bi mbooleem auditeurs yu Rewmi mhm, may fàttali ne yow yaay euh, directeur exécutif bu Jamra. Euh, donc muy ONG bi nga xam ne euh, daf fi mm. taxawal valeurs yi. tey monsieur Guèye mu am li nga xam ne moo fi xew gannaaw nag ba ngeen dénoncé li ngeen gisoon ci dessin anime yi tey ngeen gis li nga mm. xam ne ay xale dañ koy jëfandikoo mooy ay bonbon ñu def ci ay couverture nag. naka sudul noonu noonu ngeen ko jàppee tey ban appréciation déjà si fait boobu. waaw xam nga dafa am euh, baat bu tubaab di wax euh, ci wàllu commerce mm-hmm. ñu tuddee ko euh, la lâcheté du marketing de bas niveau mm-hmm. maanaam bu fekkee da nga bëgg a dugal aw safaan ci am penc nga ne xaaral ma ciblé la couche la plus vulnérable mu di tuut tànk jaarale ko fa mm-hmm. loolu lañu defoon fii en deux mille quinze deux mille seize concernant ce fameux jus de fruit la ñu di ko wax Jakarta ñu di ko jaay cent francs ci école yi. Mm-hmm. xale yi di ko naan seen jikko yi di soppeeku euh, ñuy naqari deret di ñàkk kersa ndekete ba ko Jamra analyser laboratoire am na un taux élevé d'alcool kon nag dañu doon initier xale yi à l'alcoolisme pour conditionner leen ñu nekk de futurs soulards alors yàlla dogal na bañu ñu alerter comme ni ñu alerter yoon bi yoon <clears throat> président Macky Sall la jox ndigal <clears throat> Aliou Sarr ministre du commerce mu def benn arrêté daal di portant interdiction de vente sur l'étendue du territoire national de Jakarta, Saling Saling et Nampuli. Bon, évidemment, c'était un peu le médecin après la mort parce qu'il y a eu deux morts, euh, euh, HLM à Pop, par overdose waaye ah, dañ koy sant yàlla rek ginnaaw bi ñu ko jaalee seen i euh, mbokk waaye euh, li si am solo mooy mesure te tubaab nee na il tard que jamais alors c'est cette même lâcheté de marketing moom la lobby LGBT bi nga xam ne pexe bu ne def nañ ko pour que Sénégal def comme Gabon parce que Gabon le vingt neuf juin bii passé daganal nañ fa ngóor jigéen Île Maurice daganal nañ fa ngóor jigéen euh, Cap Vert bii ñu sës rek daganal nañ fa ngóor jigéen euh, la République centrafricaine noonu alors comme que ñoom jéem nañ lu ne Sénégal dëgër bopp léegi cette même lâcheté du marketing là moom la ñu mettre en œuvre pour jaar ci couche bi la fragile bi euh, la vulnérable mu di tànk yi indi ay xeetu tàngal yoo xam ne dañuy wane euh, góor ak góor di fóonante wala jigéen ak jigéen loolu promotion directe la du lesbianisme et de l'homosexualité condamné par l'article 319 du code pénal sénégalais et rejeté par la croyance des 98 pour cent des croyants de ce pays ndax xam nga alxuraanul karim sàkk na fukki fatwa ak juróom ñett suratul anfal suratul ubud suñu mbokk catholique tam seen téere bi chapitre dix-huit verset vingt-deux suñu borom nee na coucher avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination alors donc ñu nag ñi comme que dañu dëgër bopp jaar ci ñu daal di def nag dañu def la Jamra defoon en deux mille quinze concernant Jakarta rek euh, les projets a vendus à cent francs alors ñu daal def communiqué euh, alerté ci réseaux sociaux yi ak bataaxal jagleel jagleel euh, waaye yàlla dogal na seen naataango TFM bañ ma invité génn gu ma studio sax ñu ne ma circulaire bu ministre du commerce daanu na porte demandant au directeur de département et au chef de service régionaux mmh. Euh, de prendre toutes les mesures mhm. pour que ñu retirer du circuit de vente musiba bii ngay xam ne day dugal ci xale yi ay jikko yu bon alors ñu ngi ci gërëm état bi waaye tamit ñu ngi demander à tous les citoyens épris mhm. de paix de justice mhm. de rester vigilant ndax saay-saay du bàyyi biir Saté. et justement euh, monsieur Guèye euh, tey jii wax nga ko tout à l'heure euh, donc médecin après la mort lañ ko mën a jàppee euh, ndax produit yi dugg ci Sénégal waruñoo gën a taxaw ci li nga xam ne mooy saytu gi. ah dañ ci war taxaw parce que boo ko fàttalee en 2016 am na fi benn soi-disant écrivain tunisienne. bu fi dugaloon livre boo xam ne day xas ki gën ñëpp muy Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa naka la mise la culture sàggane ba lu mel noonu dugg fi te ñoom ñu am commission de lecture et cetera et cetera mm-hmm. waaye yàlla dimbali woon nañ ci ba ñu saisir état bi Macky Sall woo Mohamed Boun Abdallah Dionne Mohamed Boun Abdallah Dionne woo ma ma jox librairie yi ñu dem saisir ko avec l'aide du commissaire de la sûreté urbaine El Hadj Cheikh Dramé foofu tamit c'est la même chose médecin après la mort alors il a fallu di Jamra alerté état saafaraal ko bon li ci am solo mooy saafaraal na ko waaye nañu fexe beneen yoon mu bañ a te am alors fii tamit produit de grande de grande consommation parce que mbirum tàngal xale yi xale yi mooy seen kii mooy seen fen alors ba tax na ministre du commerce aussi euh, yu mel ni la def bañ di accepter n'importe quoi war nañu lu ñëw ci port bi ñu xool ko analyser ko saytu ko euh, balaa muy dugg ci dëkk bi ndax euh, amoon na fi daaw benn genre boisson Euh, boo xam ne ci sachet lañ ko def euh, bugguma sax tur turam bañ leen defal publicité alors boobu xale yi dañ koy naan di nelaw classe rek nelaw rek maa woo Momar Ndaw bu ASCOSEN pour ñu boole ñu ak laboratoire bu ñu koy analyser waaye kooku tamit ci des taux très élevés de somnifères xam nga loolu mu yàq la xale boo xam ne dafa war a rester éveillé war a jàng ñu war a def ci moom xam-xam ak ji ko yiw ngay jaay ci buntu école yi poisson bu koy nelawloo alors yooyu aussi ministre du commerce war na ci def preuve de vigilance parce que France Italie Allemagne produit bu jóge bitim réew war fa dugg alors service douane bi dañu am benn bureau d'analyse ci la ñuy xool lii ñu fi bëgg a dugal nit ñi war ko jël di ko dugal seen biir daanaka la na ci ne buñ ci gisee lu lu tooke ak lu muy néew néew rek daal di bloqué produit loolu daal la ñaan état Sénégal mu yokk vigilance tey jii donc euh, mesure yi ci état bi jël ci euh, bu mujj bi euh, nan ngeen ko jàngatee ndax ndam la ci yéen. waaw mesure bi day yaatu na. parce que moom dafa adressé wu à tous les directeurs de département à tous les chefs de services régionaux kon mbir mi du Dakar rek dafa ne sur les quatorze régions foo leen gis produit rek na leen ko saisir j'en profite aussi pour dire au ministre du commerce bu fekkee mu ngi may dégg na dem na yebal ndawam ñu dem marché Petersen foofu la mbir mi wulee ñaay foofu la raay bi téenee comme ni nga koy waxee produit bi dafa fees del del del del foofu la war a jëkk dem ñu def les saisies ndax ñu ngi yàq xale yi yàq suñu doom ndax dañu nangu dëkk bu tedd bu mel ni fii Cheikh Ahmadou Bamba tëdd Baye Niass tëdd fi Baye Laay tëdd fi Cheikh al Khalifa euh, euh, euh, Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass tëdd fi Seydi Hadji Malick tëdd fi ñu di fi daganal borom ñaari tur comme ni ko Gabon defee loolu xel demu ci ndax tàngal lii ma lay wax nii mm-hmm. bokkoon na ci seen stratégie ak yeneen yu sew yi ñuy def des petits pas comme ça gabonais yi di ko sàggane di ko le résultat est là assemblée nationale voté na le vingt juin la légalisation de l'homosexualité yal na si yàlla musal. et justement gisoo ne ñoo ci yoon bi parce que euh, saa su nekk dañuy gën di dégg euh, mbiru borom ñaari tur ci mim réew gis nañ li xew ca Mermoz ak it Touba la fa xew ba mu jaral leen sax ñu déposer plainte au niveau de l'Union européenne tey jii a nuñ koy gën a tuddee fii ci mim réew. rakkaaju boobu borom ñaari tur yi rakkaaju état moo leen ko yombalal parce que euh, euh, euh, impunité la culture de l'impunité dafay mujj jur une situation ingérable. Hmm. ndax lii xew Mermoz Berk démb euh, aboutissement la de ce qui s'était passé le vingt cinq euh, décembre deux mille quinze à Kaolack ndax ñëpp ngi koy fàttaliku deux mille deux mille quinze soriwul vingt cinq décembre boobu yàlla dafa def que un heureux hasard a le calendrier grégorien suñu mbokk catholique yi ak le calendrier hégirien bu jullit yi euh, comme que bu jullit yi un calendrier lunaire alors le vingt cinq décembre daal di tombé une heureuse coïncidence que ñaari événement yëpp ñu di ko célébrer la même nuit mu di juddu yonent yàlla Isa Jésus Christ jullit yi tamit di célébrer cette même nuit juddub Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñëpp a kontaan daa ah, dana gën a dëgëral le islamo-chrétien lobby homosexuel yi tànn exprès cette nuit daal di célébrer onze mariages homosexuels à Kaolack ci bërëb bu tedd bu Cheikh al Islam tëdd ci école bu symbolique bu mel ni école Ibrahima Diouf waaye nous saluons encore une fois njàmbaaru commissaire Bokarli bu Kaolack ndax alors waaye euh, def na liggéeyam ba jàpp nañ leen la main dans le sac waaye dañuy toog ñaari fan ñu ne libéré nañ leen alors impunité boobu moo may góor jigéen yi doole ba looloo waral le samedi 17 bii ñu dàbbaliwaat ko à Mermoz bi yoon du onze góor jigéen de vingt cinq la yu doon organiser ay mariage fii ci diggu Ndakaaru police ñëw bett leen ba dajale ay preuve mu di fekk nañ fa ay préservatif fekk nañ fa ay lubrifiant fekk fa ay test VIH xam nga jàngoro boobu mu ngi def de ravages ci ñii nga xam ne c'est des des des adeptes de la déviance sexuelle yooyu yëpp ñoom dajale nañ ko yóbbu ko jébbal leen jébbal ko procureur alors léegi nag erreur bi presse bi def ki nga xam ne dafa rëcc daw ce n'est pas un médecin moom moo doon bàjjenu gars yi xam nga mariage homosexuel day am bàjjen te bàjjen bi day doon homosexuel comme ñoom bàjjen la dëgg la day liggéey dans le on les appelle des médiateurs psychosociaux dafa daw mais police dana ko jàpp parce que la police a toutes les informations mhm. te ñu ngi nekk sur une bonne piste léegi nag li ñuy ñaan Macky Sall mhm. na bàyyi procureur def liggéeyam justement pourquoi ngeen interpellé ko euh, directement euh, lan moo tax ngeen ne na bàyyi procureur ma fa ne justice yoon li tax ñu ne ne bàyyi procureur dafa am lu fi xewoon mariage homosexuel euh, bu maaw mhm. en 2009 dañu leen jàppoon dans les mêmes conditions flagrant délit avec des preuves waaye dañu toog ñaari fan ñu ne bàyyi nañ la ñun bañ ko enquêté ndekete c'était sur inf sur sur la pression de la France te jox naa presse bi ay preuves ba léegi les preuves sont disponibles maa ngi koy jox sa auditeurs yi mm. nañu dugg ci site gouvernement français www.gouv.fr d'accord ñu dem ci euh, communiqué conseil des ministres yu yu euh, mois de janvier 2009 mm-hmm. président Sarkozy moo fa wax ni la France exprime sa vive préoccupation suite à l'arrestation de ces jeunes qui n'ont eu que le tort d'assumer leur orientation sexuelle mais loolu ingérence la alors moom il a été appuyé en cela par Roselyne Bachelot qui était à l'époque ministre de la santé moom moo jox xor bi Bernard Kouchner ministre des affaires étrangères ne ko yow mi yor suñu kàddu à l'étranger waxal Sénégal na libéré góor jigéen yi léegi l'ingérence la plus inadmissible mu ngi bàyyi ci le maire homosexuel parce que moom moo kenn jëwu ko moo toog à la chaîne de télévision M6 ne góor jigéen la te am na ñaari far c'est le maire homosexuel de Paris Bertrand Delanoë moo bind ay lettres ñaari maire de ville ici au Sénégal ne leen en ma qualité de président de l'association des maires francophones mhm. maa ngi leen di ñaan ngeen ñaan président de la République nañu libéré góor jigéen ñi kon ce sont ces pressions conjuguées qui ont abouti à la libération scandaleuse des homosexuels yi nga xam ne ñoo jóg di na nappaaji suñuy valeur ba pare di ñu kokkali à longueur de journée moo tax bi yoon ma ñaan Macky Sall ñàkk fayda googu daloon Sénégal en ba ñu cédé en tant que pays souverain sous la pression d'un état souverain comme nous d'un état souverain bi nga xam ne entre parenthèses ñoom xaraamal nañu la polygamie parce que ils sont chez eux est-ce que Macky a des compatriotes euh, qui vont être pénalisés la France. Mhm. kon na Macky Sall la réciproque. kon na bàyyi procureur mu doxal dossier bi. te bu mu accepter aucun pays étranger di ci def ingérence. tey jii est-ce que documentaire bi ñu euh, génnee fësal ko ci pap bi ci li nga xam ne mooy mbiru góor jigéen yi ak seen droit am famille euh, du am euh, benn. force bi mu may lobby yooyu nga wax sax ne yu góor jigéen yi. xam nga boo gisee Pape bi les médias occidentaux yi meree woon ko di ko yàq lu ne. pape bi dafa am fit dafa yàgg di wax ne avortement église d'accord ci dafa yàgg di wax ne que le principe du mariage ci dégg-déggu église da dafay impliquer un homme et une femme loolu la église xam yàgg nañ ko mere ci loolu léegi nag il est tombé dans un piège parce que dañ doon def documentaire am ba poser ko question wu les couples homosexuels qui am jafe-jafe pour adopter parce que xam nga mënuñoo am doom góor góor mënuñoo am doom kon bu ñu bëggee de famille adoption rek lañ koy mën a defee des enfants wut am na dëkk yu leen ko accordel mais am na yeneen i dëkk donte le euh, autorisé nañu borom ñaari tur yi mayeeguñu leen droit ñu adopté pape bi nag ñooñu lay défendre nee na ñooñu am ñu droit samp famille mais dans le cadre du mariage civil mais pas religieux alors léegi nag ils ont manqué de vigilance cellule communication bu Vatican bi lobby homosexuel yi daal di exploité loolu mel ni pape bi dafa ne oh, oh, église bi ànd na ci mbirum borom ñaari tur il n'a jamais di sa il a kenn du gis benn texte benn enregistrement wala benn audio u pape bi waxee loolu amul pape bi dafa ne kay l'église se réfère sur ces textes te bokk na ci texte bu siiw bu Lévitique chapitre dix-huit verset vingt-deux suñu borom di ci wax naan góor buy tëdd ak góor musiba la teg na ci yeneen sax ay tëkku yu méttee métti bugguma ko wax fii seen antenne alors pape bi ne kon euh, sëy góor euh, sëy ci déggu-déggu église en tant que dine alors euh, góor la ak jigéen loolu mooy position Pape bi toujours waaye góor jigéen yi am jafe-jafe pour fonder une famille bu ñu leen xañ ñu am sañ-sañu fonder famille dans le cadre de l'union civile il a bien dit dans le cadre de l'union civile waaye waxul mukk mukk euh, dans le cadre de l'union matrimoniale religieuse waxul loolu fenn la ko mais tey personnalité Pape bi mu génn def loolu est-ce que du installé benn amalgame ci bopp nit ñi waaw waaw xëy na xëy na le le Vatican va préciser parce que Euh, j'ai vu dans plusieurs sites des des des bannières euh, euh, arc-en-ciel yu lub bi homosexuels yi génn di bàkku naan way pap bi ñu naandal léegi waaye pap bi waxul lool de <laughs> waaye léegi nañ ubbi suñu bët di xool rek xam naa balaa ci ay fan yu néew di nga dégg Vatican daal di leeralaat sa position. Mame Mactar Guèye ñu ngi lay jaajafal bu baax a baax. ok merci beaucoup.